Euh, je vous remercie. Euh, c'est important de, de préciser que et quel par le doyen du juge. Pendant deux ans ou un peu plus, on nous a vendu un dossier de viol. On nous a vendu un dossier au terme duquel on disait qu'une fille fragile a été violée. compte. Pendant deux ans, ou un peu plus, il y a eu beaucoup de pertes en vies Il y a eu beaucoup de dégâts matériels. Il y a eu beaucoup d'espoir perdu. Il y a eu beaucoup de familles brisées. Il y a eu et de chagrin dans La justice a fini par dire que pour ça, il y a eu beaucoup de dégâts matériels il y a eu beaucoup d'espoir des victimes d'un complot de conspiration déception ce pays-là la justice a fini par dire que tout ça devra accoucher d'une souris parce qu'en réalité le prétexte à tout ça n'était pas fondé et nous avons toujours dit que Ousmane Sonko était victime d'un complot d'une conspiration et qu'il n'a jamais violé. Donc sur ce point, la justice nous a donné raison. Que on doit tenir qu'on n'a pas violé. Ce que l'opinion doit retenir aujourd'hui, c'est que Ousmane Sonko n'a pas menacé Aguissar de mort avec des armes. Parce que les choses soient éclaircies. Parce que c'est important. c'est qu'il y a eu une conspiration derrière cette affaire-là. Et c'est important. Il faut que ceux qui sont derrière cette affaire de viol rendent compte. Rendent compte. C'est ce que nous, nous réclamons. Vous avez l'intention euh, d'interjeter appel nous avions, déjà, nous avions déjà déposé une plainte devant le doyen des juges pour complot, pour association de malfaiteurs. À qui Et pour, devant le doyen des juges. La plainte n'a pas eu de suite. J'espère qu'aujourd'hui, cette plainte sera traitée. Cette plainte, Parce que dès lors, dès lors, dès lors, dès lors, Dès lors qu'on considère que Ousmane Sonko n'a pas violé Adji Sarr, il est clair qu'il y a une conspiration dans cette affaire la peine est de deux ans. à l'opinion que la peine est une peine d'inéligibilité qui ne permet pas à Ousmane Sonko d'être candidat la compétition électorale de 2024. Et pour moi, il s'agissait pour nous de la défense. L'objectif était de salir un homme. Cet objectif n'a pas été réussi. L'autre de le rendre inéligible cet objectif a eu l'effet escompté parce qu'aujourd'hui, avec cette peine-là et en l'état actuel des choses, Ousmane Sonko ne peut pas être candidat à la compétition électorale de 2024. Maître, voulez-vous nous dire exactement les, les, les, les amendes et tout ça Le verdict carrément. Rappelez-nous carrément le verdict, s'il vous plaît. Euh, ferme oui. pour de la jeunesse. Parce que Ousmane Sonko a été acquitté pour viol, il a été également acquitté pour menace de mort. Il a été condamné à payer millions à la partie civile qui, comme vous l'avez constaté, était en larmes parce qu'elle pensait qu'elle devait être satisfaite parce que simplement euh, elle devait, devait être condamné pour viol. Mais à l'issue de ce procès, la justice ne lui a pas donné raison. Elle lui que ne vous a pas violé, madame. est matière de contumace, il n'est pas possible de faire appel. Mais sur le plan technique, on avisera. Pour ce qui concerne les conduites à tenir dans le cadre des actes à poser, euh, on avisera. Je ne voudrais pas me pencher devant la presse sur des questions qui relèvent de la stratégie de la défense. Merci beaucoup. Voilà, euh, maître Bamba Cissé la woon euh, moo ki doon tënk noonu. viol ak menace de mort ndax dafay baax buy amee ñu delluwaat ca gannaaw. ba mbar ba amee tàmbalee li xewoon may rappelé ne Ousmane Sonko ñaar lañ ko doon toppee dañ ko doon toppee viol mooy nga sàkku nit ki lu dul si coobaram si ay anam yoo xam ne tamit yoon daf ko bañ lu si mel ni menace de mort lu si mel ni contrainte ak yu ni mel beneen bi menace de mort si boppam nga xam ne dafa bokk élément constitutif sax beneen infraction boobu di viol loolu moo indi tey procédure bi ngeen gis nii yëpp loolu moo indi bakkeen yi nga xam ne rot na te may profiter également ci bi di jaalewaat seeni njaboot di ñaan suñu fraction boobu di loolu moo indi tey procédure bi ngeen gis nii yëpp loolu moo indi bakkeen yi nga xam ne rot na te may profiter également ci occasion bi di jaalewaat seeni njaboot di ñaan suñu borom mu xare leen si àjjana ndax euh, li xew tey dafa metti mënuñu si woon wax nag ndax ñun ay légaliste lañ procédure bu amee foo xam ne dafa toll dafay baax nga taxaw ànd ak dal waaye bu ñu ñëwee ba si càppandaw ba àtte bi jub dafay baax nag ñu laal fa muy méttee te fa muy méttee mooy tooñ moo am ci kaw Ousmane Sonko ndax mbirum viol bi ñuy wax amul mbirum menace de mort bi ñuy wax amul te loolu du Ousmane Sonko ko maa ngi rappelé ne bañ koy atte teewul ça veut que ne argument yi muy yoroon dossier yi mu waroon indi jébbal ko askan bi ñu gis ko loolu yëpp def ko te malgré tout juge bi ci boppam nee na viol amul menace de mort amul donc dafa nekk lu doy waar loo xam ne tey lañ mën ko tey lañ ko mën a naqarlu tey lañ ko mën a jooy beneen bi am mooy décision bi nga xam ne juge bi rànd na ko infraction bi nga xam ne moom la retenir si Ousmane Sonko bopp mooy corruption de la jeunesse may rappeler ne kayit bi nga xam ne juge d'instruction moo saytu woon bi jébbal ko chambre criminelle pour mu àtte Ousmane Sonko corruption de la jeunesse boobu nekku si dafay baax tamit ñu leeral ko corruption de la jeunesse bi si jour biñ koy atte ko procureur génnee teg ko si table bi ñun débattruñ si parce que fekkewuñ waaye bu ñu si débattroon dañu leeral askan bi ne leen corruption de mineur de de la jeunesse boobu waxi caaxaan la waxi tappale la ndax corruption de la jeunesse ñoom jënuñu ñu ko xam mënuñu ko at toppee ate ko Ousmane Sonko ndax corruption de la jeunesse mook li ñuy wax incitation à la débauche mook li ñuy wax proxénétisme ñoo bokk kaa pour mu mën a am il faut ki nga xam ne moom lañ ko teg daan mu si tiire li ñuy wax subside mooy alal wala lu ñu mel Ousmane Sonko mënuñu ko toppee corruption de la jeunesse donc waxi caaxaan la si anam bañ ko indee parce que may rappelé nag ne fii Sénégal justice nag dafa am nag nu mu war a taxawee amuñu sañ-sañ topp nit atte ko chambre criminelle si loo xam ne bokkul woon ordonnance de renvoi juge d'instruction bi il faut mu leer enquête bi corruption de la jeunesse bokk si instruction bi corruption de la jeunesse bokk si donc amuñu sañ-sañ ñëw si jour bañ koy attee indi corruption de la jeunesse te jaarale ko ci anam yi ñu ko war a jaarale donc baaxul mais même bu doon sax def nañ ko mënuñu toppee Ousmane Sonko corruption de la jeunesse léegi nag jàngat gi ñu si am mooy viol bi teggi nañ ko menace de mort teggi nañ ko yooyu crime la ñu indi corruption de la jeunesse bi nga xam ne délit la sama naataangoo bi wax léegi si ko kàllaama nasaraan rappelé na ko muy met Bamba Cissé peine bi ñu indi boo ko jàngatee lañ siy gëstu lañ siy jublu mooy teggi candidature Ousmane Sonko loolu il faut mu leer il faut mu leer léegi nag dafay jox dëgg ñi doon wax te man mii ma njëkk si ne leen objectif wu ñi nga xam ne ñoo teg lii mooy teggi candidature Ousmane Sonko tey jii am nañ dëgg si ñooñu beneen dëgg bi ñu am mooy ñi nga xam ne dañoo defoon complot pour daaneel Ousmane Sonko la mu bari présenté wu nekk candidat am nañ dëgg si ñoom léegi nag li des ba des chacun assumera ses responsabilité maanaam ku nekk la nga sa doon da nga ko assumer ba mu mat sëkk te ñu nag dina leen topp duñu leen bàyyi may rappeler si loolu tamit te di jël askan bi a témoin ne leen ay plainte déposé woon nañ ko depuis le début pour ñëpp ñi nga xam ne dañoo laale woon si mbir bi te ñu leen doon toppee pour complot loolu réaffirmer nañ ko ba ñu demee ci juge d'instruction bi tey nag ñi ngi xaar ay réponse ndax nag bu ngeen jàppee benn instant ne bakken yi rot dañ koy jël faxas teg fale yéen a ngi nax seen bopp képp ku si laalee dinañ la topp képp ku si takk dinañ la topp te lum si jar nag dinañ ko def. maître deux ans yi est-ce que arrestation automatique la wala nu muy demee. si loolu dinañ si addu ndax xam nga lu tax dafa nekk ay question de procédure yoo xam ne teel nañ pour ñu mën si wax ñun ñun daal lu ñu mën mooy jottali askan bi li xew. li ñu mën mooy leeral askan bi kane Ousmane Sonko bi nga xam ne ma nga nii këram ñu bari barikate la nga xam ne loolu lañ ko toppee woon sa njëlbeen teggi nañ ko li ma leen ñaan nag ñoom mooy comme teggi nañu tuuma yooyu viol bi nga xam ne moo ñu yóbbee li yëpp nañu dem këram dindi lañ fa def loolu dama koy wax askan bi nañu am seen fula nañu dem teggil barrière yi nga xam ne moom lañ teg kër Ousmane Sonko ndax wax léegi nag bu desee ba des nag caaxaan a des ndax viol la woon ak menace de mort setal nañ ko ba mu set li si topp yëpp ay caaxaan la nañ dem dindi barrières yi nañ dem dindi barricade bi c'est une demande sociale te nag caaxaanuñu kafuñu caaxaanuñu je vous remercie. merci beaucoup maître. kay la Sénégal. foofu baax na maître maître Ciré notre notre ami maître Clédor Ciré bon voilà tout le monde a entendu les. grand wàccal sa loxo grand fi nga taxaw baaxul. bon yaa ngi taxaw si kanamu caméraman yi kanam. jërëjëf jërëjëf s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît. Bon, s'il vous plaît, là. Bon, je peux commencer Voilà, vous avez tous suivi le verdict. Et je crois que cela fait sourire. Il est clair que le complot d'État dont nous parlions depuis le début était avéré. Et la décision rendue aussi rentre et reste toujours dans ce complot d'État. Tout un pays a pris en otage pendant au moins deux ans. Il de deux ans. Il y a eu des morts, 24 morts, dit-on, qu'il peut y des morts qui ne soient encore listés, et des centaines de blessés. les libertés publiques confisquées, la liberté d'opinion confisquée et des mesures de banditisme érigées en règle de droit avec des enlèvements, des séquestrations. Aujourd'hui, ce complot a été éventré simplement parce que la commande qui était faite par l'État du Sénégal au juge n'a pu être livré parce que la marchandise était pourrie. Le viol, la corruption, déjà l'opinion publique s'était fait son avait fait son opinion, avait son opinion là-dessus. Et les juges qui avaient la commande de le condamner non pu donc livrer la commande et ont effectivement confirmé ce que l'opinion avait déjà jugé et retenu. Cependant, il y a une substitution de la commande avec une marchandise tout aussi pourrie. Parce que la justice a trouvé le moyen de condamner Ousmane Sonko pour incitation de la jeunesse à la débauche. C'est technique, je n'y reviens pas. Mais ce qui peut être compris par tout le monde, c'est que nul ne peut être jugé sans qu'il soit mis en mesure et en, mesure de se défendre sur les éléments qui lui sont reprochés. Ousmane n'a jamais été poursuivi pour cette infraction. Il n'y a jamais eu d'enquête, ni de police, ni judiciaire et l'ordonnance l'ordonnance de renvoi et de mise en accusation devant la chambre criminelle n'a jamais visé cette infraction. Cette infraction n'a pas aussi été débattue à l'audience. Donc, vous comprenez que le juge ne pouvait que s'en tenir à l'acquittement, puisqu'il a acquitté Ousmane du, du crime de viol et l'a acquitté et l'a relaxé, n'est-ce pas, de l'infraction de menace de mort. Parce qu'il s'agit de deux infractions distinctes. L'une, c'est un crime, l'autre, c'est un délit. Il l'a relâché pour tout cela. Mais il fallait que la commande politique, qui est précise et qui, en fait, était de faire en sorte qu'une décision soit rendue pour qu'il soit inéligible que les juges y parviennent. Voilà pourquoi une commande aussi pourrie que la première a été aujourd'hui déballée, n'est-ce pas, devant l'opinion publique avec une condamnation, n'est-ce pas, pour une infraction pour laquelle il n'était pas poursuivi. Maintenant, ce faut retenir, c'est qu'il faut que l'on arrête de s'amuser avec tout un peuple. La justice, ce n'est pas un jeu. Et tout le monde a pu que la gamine à Bissar, qui a été utilisée, qui a été actrice et a joué son théâtre jusqu'au bout, s'est fondue en larmes. Parce qu'elle s'est rendue compte à la dernière heure qu'elle a été utilisée et qu'il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de mal causé, comment dirais au peuple sénégalais. Peut-être que si on lui laisse la vie, si les commanditaires lui laissent la vie, elle prendra ses responsabilités pour demander pardon au peuple sénégalais et leur expliquer ce qu'elle a déjà commencé, ce commencé à faire et qui a été versé au débat, à savoir que tout cela ne relève que d'un complot d'État. Donc, voilà. Vous craignez pour sa vie alors pour Adissar oui. J'ai toujours craint pour la vie d'Adissar parce que lorsque l'État utilise une personne dans un complot, il finit toujours par s'en débarrasser pour que l'histoire ne, pour que dans l'histoire ne soit pas révélée la vérité. Merci. Je vous remercie.